ñun ak force de ñoom li ñuy liggéey rek la ñuy liggéey ñoom mission régalienne la ñu am mais aussi ñun mission de service public la ñuy doxal kon nag nañu nekk comme des partenaires sur le terrain rek dañuy tàmbali nag jël ay résultats Ndeye Fatou ñu dooree ko euh, Touba fekki fa Abdoulaye Diagne Abdoulaye oui euh, ñu bàyyi la nga jox ñu résultat yi ñuy njëkk am waaw euh, fii ci Touba résultats yi commencé na wadd li nga xam ne moom mooy euh, ci euh, centre de vote bu daar ma naan euh, gis nañ ne ci bureau numéro quatre-vingt-six Bassirou Diomaye Faye am na fi deux cent soixante-dix-neuf Amadou Ba am seize Pape Djibril am six Thierno Alassane Sall am trois bureau numéro soixante-dix ki nga xam ne mooy Bassirou jomay Faye am na deux cent cinquante-trois Amadou Ba am trente-trois Euh, kii nga xam ne moom mooy Jules euh, euh, Fall am trois Aly Ngouille Ndiaye am na fi El Hadji Mamadou Diawo am un Thierno Alassane Sall am deux Cheikh Tidiane Dieye am trois Déthié Fall am un Daouda Ndiaye am un loolu moom mooy euh, li nga xam ne moom moo rotagum nit ñaa ngi compté te génn te pareeguñu euh, loolu mooy ñaari bureau yi nga xam ne ñoo fi watagum euh, ñoo fi rotagum te Bassirou Diomaye Faye nekk ci kanam ñu seetlu nag am ab seetlu boo xam ne war dinañ ko wax ci li nga xam ne mooy waa Benno Bokk Yaakaar gisuñu leen ci terrain bi dafa mel ne ñi nga xam ne ñoom ñooy gone yi Pastef yi dañ leen pini seeni kër kenn nanguwul a génn ci terrain bi fi mu ne nii ñoom ñoo nekk ci terrain bi waaye gisuñu benn élément benn Bokk Yaakaar te gis nañ sax ne amoon na ay jàppante yoo xam ne amoon na fële ca Poulaye ba ki nga xam ne mooy euh, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké ñu jot ko fa lottal ba mbaxanaam mu fàtte ko fa donc kon euh, di wone rek ne euh, jàppante bi ni mu méttee woon ci foofu diwaan boobule gis nañ daal ne fi mu toll nii euh, benn bokk yaakaar responsable am yëpp kenn gisu leen ci terrain bi dañoo dox ba daje kenn donc kon li nga xama ne moom mooy euh, résultat yi mi ngi rotandi ñoo ngi for di leen ko jottali euh, saa su benn waddee rek ñu jox leen ko ci jamono yi lee ñu ngi toll ci dépouillement bi jërëjëf euh, Abdoulaye Diagne nañ la jëlaat léegi léegi incha allah en attendant ñu jéem a jël keneen euh, très très rapidement euh, Salou Joseph lii mooy résultat yi ñu njëkk am fële sa Touba. Ah, ça ne parce que nag Touba dafa doon une base boo xam ni ça répond toujours à l'opposition rawatina tey ji une opposition boo xam ni bi mu nekk Sénégalais le PDS Touba fiefam la moo ko téye si donc tey ji bu joindre ci coalition Diomaye mille vingt quatre bu résultat yi commencé di génn nga gis ni score yi mu ngi yaatu au niveau de Touba je pense même que le pouvoir était conscient euh, des résultats yi nga xamante ni si moo nar a dans la ville sainte de Touba ak euh, une partie de la région de Diourbel loolu xam euh, jàpp naa ne xamoon nañ ko parce que cette région li mbooloo ma di bari bari bari électeurs yi di bari macha allah dañu am coloration jaune bleu te tey les jaunes bleus dañu dem fekki ji ñi nga xamante ni mooy la coalition Diomaye et mais dans la mais score bi dafay gën a yaatu comme mais euh, tout compte fait à chaque fois yaa ngi dégg le résultat score bi lu mu rëy rëy rëy c'est le candidat euh, de de la majorité moom moo ci topp donc il serait euh, euh, alors ñu jëliwaat yeneen résultat cette fois Pape Kadiali Badji Pape Kadiali oui Khady Colonel. mu ngoog ma bàyyi la nga jox ñu résultat yi nga am. foofu ca diwaanu Kolda voilà ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax di résultat yi jékki tombale nañu daan fii ci Kolda ci centre CEM 2 bu Kolda bureau de vote numéro un cent vingt trois inscrits nombre de votants soixante dix nombre de votants hors bureau originel quatorze bulletin nul un valablement exprimé soixante neuf ngeen baal ma nag dinaa xaw a ñeneen ñi parce que daanaka ay zéro lañu am euh, Amadou Ba douze la daa am Bassirou Diomaye Diakhar Faye daa di am cinquante deux Mame Boye Diao comme fiefam la moom nag daa dina am deux ñeneen ñi yëpp ay un lañu am wala zéro daanaka zéro bi nag pratiquement moo fi daa di fës ci bureau de vote euh, numéro un fii ci centre euh, bu CEM deux bu Kolda toujours CEM2 bu Kolda bureau de vote 2 nombre d'électeurs inscrits cent vingt-cinq nombre de votants soixante-quatorze nombre de votants hors bureau originel quinze bulletin nul zéro soixante-quatorze valablement exprimés ont obtenu Amadou Ba seize Bassirou Diomaye Diakhar Faye quarante-cinq Mame Boye six lii nag moo jóge ci résultat bureau de vote bi nga xamantene ne mooy bureau de vote deux ñu daal jublu ci bureau de vote bi nga xamante ne mooy numéro trois foofu tam daanaka euh, Bassirou jomay Faye moo daal jël euh, raw gàddu gi Amadou Ba jot na fa am vingt Bassirou Diomaye daal am euh, quarante deux ya il y a 124 euh, électeurs inscrits, votant 74. Euh, donc, euh, nee nañu ma Bassirou Diomaye am Bassirou Diomaye 43 la am 43 votants foofu ci bureau de vote numéro 3. bureau de vote numéro 4 toujours ci centre bu CEM 2 bu Kolda nekk ci centre ville bu Kolda inscrit Bureau de vote vingt 124 inscrits. Nombre de votants 81. Nombre de votants hors bureau originel 17. Nombre de bulletins nuls 2. Suffrage valablement exprimé 79. Ont obtenu Amadouba 18. Bassirou Diomaye 47. Mamboy Diao 9. loolu lañ leen jëlee fii ci centre euh, CEM2 bu Kolda pour les premiers résultats. merci beaucoup Pape Kadiali euh, euh, Badji ñu koy remercier bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñoom ñëpp depuis ce matin ñu ngi koy def muy yeneen résultat Saliou wala Ndeye Fatou muy kon yeneen résultat yoo xamante ne jot nañu ko et comme ni ko Saliou waxee Bassirou même bu jiitoo on voit que Amadou Ba moom mooy ñëw après à chaque fois. waaw loolu moom euh, depuis bi ne def nañu publication liste yi mm-hmm. des dix neuf candidats l' élection se jouait entre Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye loolu moom c' la la tendance bi nga xam ne moo gënoon lourde mais au fil du temps ak avec les résultats on sera qui des deux va passer soit au premier tour ou bien ils vont tous tous deux passer au second euh, tour, second loolu ci kanam lay leer pour Touba nag euh, depuis 2012 c'est pas une surprise pouvoir wul Touba depuis 2012 mhm. surtout Mbacké parce que euh, Mbacké moom ci région bi la mhm. mais y a aussi à côté et Bambey mais bu dee Mbacké spécialement et Touba surtout Touba commune moom Touba mosquée Touba mosquée et commune rek Touba commune ci boppam euh, nguur gi mosu koo gagné xëy na ci village yi lay nguur nguur gi di am yenn voix yi mais pas dans Touba commune loolu mu depuis 2012 en 2019 mu transigé euh, transité euh, vers sa Seck parce que c'est Idrissa Seck qui avait gagné Touba en 2019 il faut le signaler c'est après 2019 qu'il a perdu Touba donc Touba moom mosul favorable au pouvoir en place donc c'est pas une surprise ah tout comme le Fouta peut-être n'a jamais été favorable à l'opposition donc il des zones yoo xamante ne moom seen résultat doo ci am une grande surprise il faut ah. mu am vraiment renversement de la tendance pour nga ah am surprise mais ah tu as une idée euh, yoo xam ne mën nga ko am dans certaines zones du pays et aussi on n'a pas encore les résultats globaux on a des résultats partiels des bureaux de vote pas des centres pas voilà amaguñu résultat centres yi amaguñu résultat communes yi amaguñu résultat départements yi donc on a des résultats partiels partielle maanaam euh, ci centre bi bureau bi nangam moo fi am bureau bi nangam moo fi am bu ñu paree dinañ am euh, le procès verbal bi nga xam ni mooy énumérer les résultats du centre euh, bu ñuy affiché ci buntu centre bi après ñu commencé xool au niveau du département ce que les tribunaux vont donner ak Pikine Guédiawaye Rufisque la grande de la ligne des grands électeurs ah, tu, tu à Dakar tu transites vers Pikine ci kit dakaar nga dem Thiès jël Mbour dem Mbacké jóge fa dem Saint-Louis dem Louga si tu as quatre comme ça rek tu sauras qui est le gagnant de la présidentielle parce que euh, forte tendance yi foofu lay dégager woo pour le candidat. c'est sur que à ce rythme moom balaa vingt heures incha allah. dinañu xam euh, en attendant peut-être Fatou Abdou Ndiaye di ñu euh, di ñu jox keneen koo xamante ni moom itam dinañu jox résultat yi léegi léegi. Euh, Younoussa Baldé bu fekkee yemb na ñu jël ko bu.